Aliou ji mhm. léegi lan ngay wax nag ci actualité bi am dëkk bi nii ñu toll nii mhm. nit ñi mel na rey nit mel na rey mala mhm. Aliou ji rey bi mel na tulleeg màlli eh, ci dëkk bi te euh, loolu xabtal la wala lan la tamit ëpp na de waaw Cheikh daal pour mais si bëgg a wanaal ne dañu war a def ay sarax ndëppal dëkk bi waaw loolu euh, mën na doon xabtal mën na doon ay affaire yooyu <laughs> yooyu tamit loo ci wax nit ñi loolu man sëriñ si dañ ma def retaan affaire sëriñ soosu nañ bàyyi lu yomb di lekk xaalis yi jàmbur yi ak di nax nit ñi di leen ootal di naan ay dañ leen xabtal dañ leen lii dafa am benn sëriñ bu doon wax ni ku mënul dara ci suux mhm. na moytu yàq nit ku dof yow sëñ Cheikh mhm. wala ku ko tayul dina war a moto wut xaritam mu toog ci ginnaawam ñu préparé seen lépp euh, prémédité ñu wut seen saak def ci seen yëpp ba pare kooku nga ni dafa dañ ko xabtal kenn mhm. defu ko dara ñàkk yar la ñàkk diine tayeef ak yëpp nit ñi loolu donc la amul leneen jinne yi a génnee su ma la téyee ba nga xamante ni da nga naan baal ma baal ma dama non non su ma la baalee léegi yow a léegi da nga koy defaat man kay kii leer na ma da ngay génn mais damay ba mu ma rey ko waaw ma ma rey def nëbbuma ko damay rey ku mënu rey nga noppi waaw damay rey ku mënu rey da noppi parce que ku mënul dindi yow leer na ma ni yow doo ah. mën rey man damay rey. lu ma kenn jàngalul damay rey. damay mhm. rey. naa fi ñu bari ak ñu ngeen gis ñu ngeen gis damay rey. déedéet déedéet wax damay rey jinne balaa ñu lay. keneen damay rey jinne. ah waaw waaw kooku amul werante te bu ma la rey. balaa ñu koy fi indi lay plainte yooyu naan. ku gëmul rey rek. Mm. rey jinne nga xool vidéo ba mu àgg. nga ah. gis nit ki bu garee moom ni comme xar lay def danaan lacc lay def ah. nelaw temps. lacc lay def. lacc lacc bu ma bu ma jàllee ba pare. Ah. lacc lay def nii lay def day sànni bopp bi. xale bi waaw ah. korog laa ko doog gis. Hmm. korog laa ko gëj gis. def sama xeetu jinne bu ma seetlu bu saay saay. bu saay boo xamante ni léeg-léeg ngay lijjantee client bi mu écarté wu tuuti ci kër mu écarté ci kër gi lay dëkk. ci kër gi boo xamante ni day ci kër gi ak moom. il faut que ma ko bagage foofu. nga defal ko bagage moo tax dafa am lu ndaw lu may bind. ci sama loxo lu bokk ci yi léegi. waaw jaxase ko ak ndox. ma hmm. jox la ko ma jox la trois jours. Hmm. nii la def ko ci kër gi trois jours wala sept jours bu jours yi matee bu demul day dee. mu dee bu dee jinne bu dee jinne rab rab nitu guddi. nitu guddi def def mooy dëmm def def. cat cat. juróom yooyu ak liggéey ci la bokk. waaw def def def def def def def njabar yooyu yëpp mu ngi foofu. Ah, sëf mu ngi foofu mu ngi si def def. loolu ko am yu bees yii yëpp da nga ciy mucc. yooyu dama la wax nii la bu fekkee.